incha allahu ginnaaw raay ak fondation 221 euh, jàppale si waa ginnaaw raay tey nag euh, defe na ko ni ko waxee woon bien vrai que ak ay surprise parce que man mom kouma xam sax xam ma ngi doog a ci lal mais lu ci gënon am solo rek moy def nañ ko li mu fi joxe ànd ko ak fondation bi yàlla na ko ko yàlla remplacel remplacel ko borom fa mu ko jëlee ñu jàpp ni que ni partenariat la boo xamante ni day ubbi mais incha allahu dafay continuer kon ñoo ngi toog di leen ubbi sunu ay loxo di leen wax ni fii ngeen ñëw yéen a ko gisal seen bopp bu fekkente ne rek ndimbal rek te yàlla tax moo tax fondation bi jóg vous avez vu xam nga ñu nag fii lañ dëkk comme ni mu ko woon ci plateau bi fii mooy suñu Almadies fii mooy suñu Point E fii lañ yaakaar donc en aucun cas ku ñu fi fekk euh, fekkee ñu fi ci condition yi euh, nga xamante ne moo nekk ci taw bi war nga xam ni loo ñuy looy defal waa koñ bi rek euh, war nga ko mesurer xam ni da koy def te yàlla tax te gis naa ni noonu ngeen ko defe parce que bu du woon loolu dangeen di bëgg ma sabar xumbal woote woo ma neex man sax ñëw bi dèjà daf ma bett par surprise la mais terewul lu mu gàtt gàtt ànd nañu ak euh, ñi nga xamante ni ñoom la ñu war a àndal ñu génn dugg si kër yi ku ci nekk ngeen jox ko la ngeen ko war a jox te itam wóor na ma ne dina leen jariñ amu ci kenn ku ngeen di jox la ngeen ko jox te jariñu ko parce que man xam naa fii fii la dëkk fii la yeewoo lu ma am yëpp fii laa ko def donc je pense que ah loolu yàlla moo leen koy fay te yàlla na leen yàlla fay li ngeen jóg di nuyu bu baax waa ginnaaw di leen sant di wax ni nii rek la ñun lu ñu am rek fii lañ ko fas yéene def ndax euh, bu ëllëgee euh, lu ci bénéfice bu ci am ñu nit ca la ñuy bokk donc ñuy nuyu Moussa bu baax di ko sant mook fondation bi di nuyu Coro Mbaar di nuyu xale yi ngay àndal yëpp di leen sant di leen gërëm asalaamaaleykum mbooloo mi ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp donc fondation 221 tey moo ñëwoon fii ci pikin ginnaaw ñëw pour dimbali plus de 100 familles ak ay kits alimentaires yoo xam ni dafay am tout ce qui ci diwlin ceeb euh, spaghetti vermicelle ak euh, vinaigre ak yeneen ak yeneen yoo xam dina ko accompagner pour mën a jàppale population bi actuellement ak covid 19 bi nga xam ni dafa tax euh, nit ñi dañoo sonn ndimbal dañ ko soxla moo taxoon tey fondation bi ñëw ànd ceeg euh, pape cheikh diallo pour def ko tey donc loo xam ne nag dañ ko bëgg continuer di def chaque année mu nekk loo xam ne chaque année dañuy ñëw dimbali si population de pikine ginnaaw raay donc jërëjëf maa ñëw tey ginnaaw raay pikine Euh, defe naa du guléet ma ñëw fi bataille euh, en fi ba tàyyi ak euh, sama association tous pour un di réflexionner ay kër te à chaque fois may def social fondation 221 daanaka nous rek ñoo ci gën a jàpp bu sur da baax construction donc bon bataille, tey ma gis ni ñu ngi def jàppal ma un peu partout à travers le Sénégal xëj na tey ngeen ma fekk si parce que man lañ fi andal waye danaka wer bu jot dinañu dugg ci ay gox ak gox goxaan yabuñu dakar dañuy dem mbacke zigen sor yeen say dama len di wo fan ngeen nek ñu ne ma ñu ngi nek au fin fond du senegal lepp rek ngir dimbalante kiko kiko initier nak di Moussa Nia mom bokku na ci sénégalais yi nga xamanteni bitim rew lañu nek états-unis mais faté wuñu ben yoon seen rew donc momit bi mu gisé ni mag mom ño bokk passion muy social bi ci la jokkowé ak euh, suma rak Sofi Diop nga xamni mom dafa yag liggéey ci walu social digënté artiste yi mu doon andal

dafa tombé euh, bi nga xamee ni euh, décidé na pour ànd ak fondation 221 semaine bi ma recevoir ci sama émission honorable député mam Diarra Fam donc ci biir waxtan bi ma xamni ni bëgg na goxam xamni itam euh, am na yenn dëkk yo xamanteni da nga fay fekk ay nit yu soxla parce que moi je dis souvent Teranga, jox ko nit baxna mais xam fa nga koy tàbbal gën ci la ko diggé ne ko écoute euh, dinaa la fekk ci ginaaw ray bu ko defé man ak fondation 221 ñu dimbali leen donc loolu mo taxone ñu ñëw fi tay donc euh, xép nañu lool li ñu def ay kit la yoo xamante ni defe mat na tabaski ndax euh, soble la diwlin vinaigre bu amone lenen tek ci waaye defé na dugg nañ ci kër yu bëri deug la ñu ngi gëreum Pape Cheikh Diallo ak tous pour un di gërëm fondation 221 ak Moussa Nia ak ñi mu ci àndal mais dafa may xale yoo xamante ni kenn xamu ñu bokk fondation 221 xaaruñu dara ay bénévole lañu muy ñii ma taxawal cest diir dire du salaire du xaalis dañuy bàyyi seen i activité bàyyi seen i liggéey bàyyi seen i programme di ànd tout le temps ak Moussa Niang ànd ak fondation 221 donc ñooñu ñu ngi leen di gërëm bu baax te xam ni lu dul mbaax mbaaxu ko gën am na ñoo xamee ne suñu borom dooleel na leen ay nit yu ko soxla ñàkkul ci réew mi donc loolu moo tax tey ñu ñëwoon fii ci euh, pikin ginnaaw raay pour euh, dimbali leen